présentation présentation grand combat bi ngay am noonu waaw waaw Abdoulaye Ndiaye au four et au moulin bulldozer am noonu gin bu yoof ngay am noonu Baba Diaw mi ngi ci rang yi Jibi production moom organisé

waaw waaw yàggatul de yàggatul yàggatul dara maa ngi jégalu jaamu tukulóor bi Mamadou Diouf mon ami mon frère maa ngi jaar ndeysaan Mamadou Diouf from ITV e moom ngay am foofu présenté nañu grand combat bi bulldozer écurie Malika Mbolo gin bu Yoff écurie Yoff waaw waaw aca gin bu yoof aca bulldozer waaw waaw jeex na de dara desatul lu dul arbitre bi sifflé génn seen diggante ñu ñu grand combat bi attention est-ce que pare ngeen Acha ngeen arbitre bi dimanche 13 juin 2021 on est au stade Iba Mar avec le promoteur Jimmy à la tête de la structure Gibson Production qui organise aujourd'hui ce grand combat qui oppose Guine de à Bulldozer de Malika. Le coup d'envoi est parti. Voilà les deux leaders face à face. Des balancements de bras de part et d'autre. De part et d'autre. Chacun des deux protagonistes essaie d'étudier son adversaire. Attention à york Attention à Bulldozer de Malika. Face à face. Balancement de bras. Balancement de bras. On peut dire que les deux se respectent mutuellement. Ils se respectent. Chacun des deux sait qu'il a en face un adversaire redoutable. Guine est conscient du fait que Bulldozer est un technicien. Bulldozer est conscient du fait que Guine de Yo est aussi un excellent lutteur. Raison pour laquelle ils se respectent mutuellement. waaw waaw arbitre bi na sama gars yi génn na seen diggante Guine bu Yoff écurie Yoff Bulldozer écurie Malika Mbolo tey le dimanche 13 juin 2021 de la saison 2020 2021 Jibi Ndiaye borom Gibson tey wala fi bu Yoff ak Bulldozer arbitre bi sifflé na génn na seen diggante waaye ñaari i dañoo joxante cër ñoo ngi lewtoo arbitre bi sifflé na arrêté na combat bi lewtoo bi dafa yàgg arbitre bi sifflé na arrêté na combat bi foog ñu bëre il faut ñu bëre nee na leen bëre leen leen sama gaay yi sifflé waat na sifflé waat na génnaat na seen diggante dafa mel ni Guinguinéo moom mooy xaw a reculer taxaw na suul tànk yi taxaw na suul tànk yi gin bu yoof bulldozer ñoo ngi lewtoo ñoo ngi lewtoo attention gin bu yoof gin bu yoof bulldozer Yoff Bulldozer arbitre bi sifflé na génn na seen diggante ñoo ngi xoolante attention ji mel na ni dem mel dem waaye demul aha Bulldozer na ni roofoon nañu roofoon nañu Bulldozer Guine bu Yoff attention bil mi ngi dugal ay coup Bulldozer mi ngi dugal ay coup Guine bu Yoff taru na ko attention Bulldozer jëm Yoff la jëm wala Malika le derby Malika Yoff kan mooy ñibbi ak ndam li attention Bil mi ngi dugal ay coup Bil mi ngi dugal ay coup Bulldozer attention mbot mi baaxul Bulldozer mbot mi baaxul Bulldozer moo tur ki ngay bëreel daanoon la Bulldozer ki ngay bëreel daanaan la c'est un danger danger la Guine bu Yoff ñeme risque lool waaw waaw Guine bu Yoff Guine bu Yoff Bulldozer Bulldozer nag ñëwoon mënul nekk mbër ndeysaan tellement que bi muy dugg ci lamb ji dafa tuuti woon nekk xale bu ndaw teel a bëre aha bil sëq na ci génno gi Bulldozer attention gin rasu na ba jeex tàkk gin dafa rasu ba jeex tàkk génnaat ci dis pour vous dire que ne sama gars yi pour vous dire que ne ñaari ndaanaan ñooy bëre ñaari ndaanaan la ñu boole Attention Bulldozer attention, attention Attention Attention Webgi, Attends, non, non, non, non, non, non, non, placage, Placage du barreau, non, non. Non, non, Non, non. Placage, mon femme. attention, attention attention avertissement. Bulldozer a un avertissement un partout un avertissement de part et d'autre Bulldozer a hérité d'un avertissement alors que Kim Deyov avait déjà d'un avertissement avant le coup de sifflet avant le coup d'envoi du combat ils sont à égalité un partout Aha. Ils se respectent mutuellement. Ils se respectent. Jim de de Malika. La victoire ira où À ou Malika Quelqu'un a la victoire va t choisir Rentrer à ou rentrer à Malika qui de Guildeyo, bulldozer de Malika, finira par obtenir gain de cause aujourd'hui. Le mystère reste entier. Mesdames et messieurs, le mystère reste entier. Attention, bulldozer à l'abordage. Bulldozer a amorcé une attaque. Il a amorcé une attaque. Attention, Guinée est en train de riposter. Guinée est en train de riposter pour lui faire attention. jël na tànk bi. Guinée bu yóbbu jël na tànk bi. Guinée jël na tànk bi Bulldozer ah Guinée génn na ci. Bulldozer génn na ci. nee naa leen sama gars yi ñaari ndaanaan ñooy bëre. Bulldozer dafa mën a bëre. bu yóbbu dafa mën a bëre. aha ma dóor. Dorel Mado. Attention, Bill. Attention, attention, Dorel Mado. Combat vie maintenant. Combat vie maintenant. Bulldozer. Gil Bouyo. Vous nous le mettre. nous le mettre. Vous nous combat, vous voulez, mais vous nous le mettre. Guine Bouillon, bulldozer. Attention. Oh, waaw waaw sama m'a yi lan mooy xew tey Quand mooy ñibbi ak ndam li Quand mooy ñibbi ak ndam li bulldozer Voilà, voilà ah, wala Guine Bouillon. action bi passé action bu yéeme moom lañ fi am. puisque gin bu yoof dafa jël tank Bulle Dossier bu lu bari seex lu bari waye Bulle daf ko contrer Bulle Dossier daf ko contrer ba génnaat ci waaw waaw Bulle Dossier gin arbitre aywa arbitre bi toog na sama kanam aha Bulldozer dafa pare pare ah non non non non non ñu koy jéem a wéyale Bulldozer moytul Bulldozer moytul attention a ronu yi bëre nañ de

bi baaxul attention mbot bi xatar bi la wala bi attention bulldozer attention Guine attention attention bulldozer dan na Guine bu Yoff bulldozer combat bu metti bëre nañu combat bu metti Bulldozer daan na gin bu yoof jël am na sama gaay bil daan na ko jël bu rëy Bulldozer daan na gin bu yoof waaw waaw li moo nekkoon làmb ji bëre nañu combat bu metti bëre nañu combat bu metti waaye Bulldozer moom moo mujjee daan kii di Gine bu Yoff